waxoon naa ko keroog le président de la république daf ko yëgul ba ba tax na ba léegi kenn déggul mu génn massawu doon que ni ñi nga jox ñu jiital mbiru mënd bi dañu tële ñoom it kenn xamul ban tànk la ñu war a feccee fu mu toll nii askan wi nag sonn nañu surtout ñi nga xamante ni mënd bi impacté na leen ngir yàlla ak yonent bi surtout yenn presse yi dimbali leen ñu ci waxu làmb làmb weesu na. kii daan daan na kii daanu daan na mënatuñu wax ba ñu dellu si waat si ginnaaw nañ leen concentré ci li nga xamante ni mooy mbënd bi nga xamante ni intéressé na askan bi ñu si baree bari ñàkk nañ si seen kër ñu si baree bari génn nañu seen kër di fanaan ji si ay école ñii génn nañu seen kër ñu abal leen yeneen kër wala ay chantier yu pare dimbali leen ñu ngir yàlla ak yonent bi ci waxul làmb ji ndax weesu na